ma ne ko léegi léegi léegi situation bi dafa renversé wu waa famille bi ci fekk donc soxna Mame donc di ko félicité di ko encouragé donc di ko ñaanal suñu borom mooy ko donc tawféex ak taysiir ñi xamante ni moom la am mu ko àggali ci sago parce que ñu ngi soog a dugg ci buntu jàng dëgg li neex ñu naan jàng coono baa ngi soog a commencé mu teel ko xam ci xelam def ko teel ko ngeen teel ko ci préparé mhm. donc mais li mu gën a neex ci visite bi donc tey dama am appelu d'âge ami mhm. mu woo ma ce matin mhm. ne ma moom daal dafay euh, dagg ay activité politique am tey jii donc pour dem ci candidat yi nga xamante ni parce que bac bi day def chaque année dañuy toggal xale yi ñuy def bac ci centre yi ñoo leen fekk foofu jox leen añ moom mu ñëwoon jàpp ci nag ren mais bu mu ñëwee dafa joxewoon woon kàddoom ne après dina am suivi moo tax tey bi ma woowee affaire bi jaral ma lu ne pour ma dagg sama temps bépp parce que chaque fois fii ñu département de Mbacké xale yi dañu am bac mm-hmm. mais malheureusement du ñu am suivi kilifa yu leen jàppale pour ñu am bourse dem jàngi te xale bourse dafay jàppale xale bi ci am njàngam moom nag tey bi ma woowee wax ma loolu mm-hmm. ne ma suivi bi laa bëggoon ñu def ko donc damay gàttal sama activité politique yëpp parce que période campagne la nekk te nit loo yëkkati ñu ne politique te lii ça donc moom aussi mu am fu mu bokk ci benn parti et tout cela mais bu nekkee responsable ba xalaat xale yi. Mhm. parce que xale yi ñooy avenir lu ëllëg. te yaakaar naa ne ñoom ki ñu liggéeyal muy président de la république mhm. avenir kii politique bépp ci ndaw ñu la ko def. Mhm. sama yaakaar ñoom nag bu ñu jëlee seen xalaat bu ko teg ci xale yi pour que jàppale xale yi accompagner leen donc daa mel ñun lañ koy defal parce que ñun xeex rek la ñuy def pour euh, intérêt xale yi ñu xeexal benn mag pour son intérêt. xale yi la ñuy pour ñu am seen avenir ëllëg pour bañ a sonn moom nag bu amee xalaatu ñëw pour xool xool si leen waxtaan nañu xool man lañ leen di ba mën leen jàppale ci wàllum xeetum bourse pour ñu dem jàng bi donc loolu moom vraiment ku nekk ci waroon a mën a dox ñëpp ñu waroon a topp pour loolu ñu mën ko parce que ñeneen ñi mën ci roy mhm. parce que département de Mbacké comme keroog maa bi ne lycée bi nga xamante ne mooy lycée de Mbacké dañ war ko tuddee tur te amagul tur dañ koy ñaan tuddee ko Serigne Saliou ba mu joxe woon ci ndigal fi nekk nii boo xoolee Sénégal lycée moo nekk lycée bi ëpp ay ko mu nekk loo xamante ni moom bu jugee en tant que kilifa en tant que jigéen mm-hmm. aussi parce que am ay moroom kilifaam yu fi nekk donc pour dox lii mënuñu lu dul accompagner ko ak fierté nag amuñu dara luñ ciy regretter wala luñ ciy kii parce que c'est l'intérêt de la jeunesse donc ça n'a rien à voir ay campagne politique ak leneen ak leneen lii moom vraiment madame mm-hmm. Mbacke dañ la ci sant bu baax a baax mm-hmm. idée bi ak ku la ko xalaatal ba mu ñëw parce que man problème ba pare suite bi lan lay doon donc bi nga ñëwee ànd nañoo ci yenn centre yi bac bi ñu àggee jël nga fa am nga loo waxoon vraiment yaa ngi ci kàddu boobu di ko dox aussi ñu la ciy baax a baax di sant di la ñu koy féliciter di ko remercier encore parce que ku yaru la ku am jom ci li muy def mu bëgg ko lool nag talul dara ak da damay àgg ci ne ko dinaa la yóbbu hôpital ngir nga lekk bu mën a dox pour ñeewante bu am ci moom ngir gëm-gëma bu mu ko gëm loolu moom suñu borom subhanahu wa taala may na ko ñuy wax jaajëf te di ko sant mais su ci nenoon amoon du tee ñu remercier ko parce que dignité ak personnalité ak gëm-gëmam may na ko ko kon ñun ñu ay waajuram ñu ngi ko ci ko ci remercier bu baax kon li mu bëgg ci li ko suñu borom subhanahu wa taala ma yàlla na ko jëriñoo ñu dund ba barkeel ba yor ci ay waajuram barke Cheikhul Khadim ñu leen di jaajëfal yéen tamit vraiment gis nañ taxawaay bi merci beaucoup encore. Mame Faty Mbengue. Ah, Mame Faty Mbengue. oui Fallou Galass laa doon jàngee école école privée Fallou maa ngi remercier Mor Ane Gueye moom ndax bu du woon ak moom lii a am ak tonton Sidi mi ci ak samay parents sama yaay ñoom ñëpp maa ngi leen remercier mes collègues tamit bac bi métti woon day yomb incha allah man j'ai spécialisé dans les allah Matthew dama kontaan vraiment ndax lii jafe na ci ku ñu considéré comme jeunesse bi jàppale ñu ci loolu vraiment maa ngi di ñu jàppale ak yooyu vraiment li yombutoon na ñu ngi sant eh, ñi fi daje ñëpp di gërëm soxna maam Faty suñu tànku tey nag ñu ko waxee monsieur le dañu ñëwoon encouragé si ko mais félicité ko encouragement yooyu nag félicitation yi ñu ci dugal ay parents wom du du yomb xale yi sama yaram dafa daw bi ma déggee ni nga ko waxee eh, centre yi ñu visité woon xale yi condition yi ñuy jógee di jàngi donc bu ñu demee ba am ci ñu am bac mais am mention am bac bi rek doyul mais ñu am mention euh, defe naa ne loolu dafa am lu bari lu mu lu mu wone ci ñoom parce que dans des conditions très difficiles la ñuy jàngi jee Touba xale yi école amu fi ñuy def des kilomètres pour dem jàngi dans des conditions extrêmement difficiles ñu jaar ci euh, yow nga jaar ci keneen ak keneen jaar ci donc ñoom bu ñu ci jaaree mais non seulement ñu satisfaire ñu ak le diplôme mais ñu satisfaire ñu ak la mention donc du ñu mën lu dul jaajëfal ko ñëwuñ fi comme ni nga ko waxee pour def de la politique non ñëwuñ fi ànd ak presse bi pour wanewu ñu bëgg xale yi seetaan xam ne buñ ci defee liñ ci war a def dinañ am li soxla maam faati am loolu lañ ci jublu ci ànd ak presse bi ñëw bi ñu ñëw aussi li ñu bëgg mooy en tant que autorité bi ñu doon ñu taxaw ci wetu maam taxaw ci wetu parents yi parce que wax nga ko le problème du suivi et après cela mën naa leen sant yéen ñi aussi surtout madame Bakke nga xamante Euh, bon mi ñuy soutenir booba léegi xaw ma woon ne sax ceeb bi neex yi ñu doon lekk ci centre ba yooyu moom moom moo ko fa doon indi macha servir nañu bu baax a baax donc soutenir nañu aussi bañ mën a continuer épreuve yi euh, dans de bonnes normes donc euh, ñu ngi koy sant aussi ñu ngi koy sant surtout lim defaat nii muy suivi parce que élèves yi. après mën nañoo jàll avec mention mais des fois dañu am problème wala dañu am benn kii benn problème de soutien pour continuer seen étude donc des fois da leen def stress sa mën na doon man mën na doon sama benn xarit da ngay dégg kaa bu des fois mais donc lii bu fekkee moom mi ngi ciy dox tànk yooyu donc dañuy du ñuy def lu di ko rafetlu di ko ñaanal aussi euh, li mu bëgg moom aussi yàlla yàlla may ko ko yàlla may ko bon man j'ai toujours été passionné euh, par le droit Ah, procédure de préinscription bi ah, oui defoon naa ko mais malheureusement ah, par Parcoursup laa ko defoon mais après bac bi dama gis ne délai entretien bi dafa jàll donc ba amoon na acceptation université privée yëpp bañ envoyé woon seen formulaire yëpp ba ma waroon ko remplir mais kii bi délai entretien bi moo jàll tey soxna si Gaye ñu lay nuyu di nuyu mbokk yi ci kër gi yëpp di nuyu Serigne Moustapha di ko félicité donc ci sama ginnaaw bu amee xale yu am jom bi ma amoon pour euh, fi ma nekk tey ñu nekk fu ko gën a kawe assuré relève boobu damay taxaw seen wet parce que ñoom bi ñuy tolloo fi ñu fi bi ma tolloo ñoom fi ñu toll nii soxla woon naa autorité nekk sama wet amuma ko woon donc man suma yàlla dimbalee tey ba ma am chance wu yàlla boole ma ci ñi bokk ci réew mi tey di ko doxal jaadu na ma gestuwaat pour li ma soxla woon ma xam ne tamit ba tey soxla bi mu des ma dem delloo ko ci ñi ko soxla loolu mooy ñëw félicité ko d'abord xamal ko ne ko li mu def nii yombul parce que am bac yombul wax ma laa la nga am ko ak mention ça veut dire que moom bëgg na lim doon def ndax jàng da nga koy bëgg pour réussir euh, félicité la yow waajur bi parce que école privée la doon jànge euh, fii mu dëkk di jànge ji Mbàkke xam nañ ne ay moyens la laaj euh, li ci gën a doy waar mooy des fois du fi nekk di may wax tout temps nag man ci samay plaidoyer waajur yi nañ xañ seen bopp pour waajal ndaw yi parce que dañuy dund ay coono bu ñu xañul suñu bopp waajal ndaw yi coono bi day continuer donc kon ñu gis ne xañ nga sa bopp en tant que waajur pour que faa tey am li mu am dans une école privée Moustapha nag incha allah dinañ xool niñ ko mën a accompagner parce que li ñu bëgg mooy graines yi maanaam ci jiw bi macha allah dañuy bëgg muy meññ di jour lu bari lool moo tax ñu leen di accompagner pour bu dee fii la bëgg a toggal dafa bëgg a génn lu mu ci doon dinañ fexe ba suba dina amaat beneen jotaay ak ñoom boo xamante ne bi ñoom ñëpp dinaa leen dajale toog am na lettre yu ñu leen war parce que dañu war a adresser ay correspondance au ministre de l'enseignement supérieur joindre ci seen copie de relevé yi pour demander des bourses d'excellence loolu na xam naa ne man maa koy porter personnellement pour que mu am suite ba nga xamante ne bi euh, université privée comme publique yi nga xamante ne bi foofu lañ bëgg a dem jàng bi yomb fa loolu nag euh, dinañ ci def lu ñu mën ci jëkk ci délégation bi ñoo koy nuyu ca di ko siyaare soxna Amy Mbacké mi di sama doom ndax kii tey boolewun de ci sama doom ma yéen ñi ànd ñëpp wax dëgg yàlla sama doom ngeen wax dëgg yàlla waaye rawatina ci moom mii na nga xam ne moom dëgg yàlla lii du tey démb la woon yàgg na lool wax dëgg xanaa yàlla moom mooy boole daal ay nit di leen ñaanal nag yéen fi ngeen bëgg yegg yàlla leen fa yàlla yeggale barke sëñ Tuubaa moom tamit tànk yi mu jóg daal di dimbali ñii te yàgg na koo def ndax même hôpital ganatu noonu la daan def man dem naa fa boo xam ne fekk mu séddale ay añ yoo xam ne ñun soxna amee ko fi mu ko def ci loxo boppam séddale añ ni di añ malade yi fa nekk ñëpp ñu leen tibbal booba ba ma duggee ma ne kii ki joxe añ ñu ne ma soxna Amy Mbacke ma ne man soxna Amy Mbacke man am naa doom joo xam ne soxna Amy Mbacke la tudd dañ ngi jaanatu ko ñu ne moom moom la wante def nii de wax dëgg yàlla ah, lu yàgg la ndax lu baax dafa baax te xam naa ne lii muy def ni du jëkkee koo def fii de tey ndeke ndimbalam yëpp sax ci yàllam bii la ko njëkk a def ma di ko ñaanal lu mu am ren bu déwénee yàlla am lu ko ëpp ak bu baax waaw nag fii mu ñëw man du ma ci sori ndax kii rek ma moom damay bàyyi rek wax ji li ci des moom mu yeggale ko waaw man mënu ma cee wax dara la ci des. dañuy fi teew yéen ñëpp ngeen ziar baax nekk di sa sant eh, di jiital ci si soxna maa Amy Mbacke di bu baax di ko sant bu baax tamit ci xéewal nga xamante ne mu ngi leen ko jox eh, suñu mbokk élèves yi ci yi eh, examen yi ndax loolu yitte woon nañu ko lool lool lool. dama doon seetlu tamit jamono yi nga xamante ni buñu mësaan a xéwlu ba noppi ñoom ñëpp dañoo ko ñaanal bu baax te xam naa ñaan googu noonu yàlla nagu na ko ndax moom dëgg yàlla ak joxe ñam moom ñun ñëpp xam nañu ci yàlla wax waaw kon bu fekkee mi ngi koy def ñun dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di ko ci ñaanal nag yàlla yokk xéwal yi gën koo barkeel suñu yéene moom ci njàng mi wax dëgg yàlla ah, kawe na lool loolu nag a nañoo jàng ba ca kanam kanam kanam ndax wax dëgg yàlla bëgg nañoo jàng tamit ba am ay lijaasa yu kawe ci njàng mi am bëgg nañoo génn tamit ci bitim réew dem jàngi fa waaw te bëgg nañ ku ñu jàppale wax dëgg yàlla ndax suñu amoon moyens yi moom si yéene moo génn bitim réew dem te bitim réew jàng eggale suñu njàng bu defee suñu noppiwaatee ñëw liggéeyal suñu participer ci suñu développement suñu réew waaw ñu bëggoon suivre wàllum ingénieur en aéronautique waaw loolu moom duma wax ni dafa yomb ndax yombul ñaari ñu wax naan xel mënut jàpp ñaar waaye yàlla suturaaloo nañu ba nga xamante daal mënoon nañ koo boole ndax daan nañ jugee ci daara ja buñ jugee ci école ba ngoon gi dañ daan dem ci daara ja kon wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax ba ñu dimbalee waaw loolu lépp ñu mën koo boole te am na ci ñoo xamante ne ñu ngi koy def te soo xoolee dinañ am ay yenn saa ay jafe-jafe ndax soo bëggee di jàng leçon yi ca daara ja ba pare boo la ci bëgg jàngaat ci ñëw ci kër gi bëgg a jàngaat yi nga jëlee ca école ba tamit yooyu yëpp nekk loo xamante ne temps bi du la waaye sant nañ ci yàlla bu baax ba ñu amee jàppandi googu noonu ba mën ñaar yëpp daara bi moom yàlla dogal na jotoon nañoo bind kaamil waaw waaw suñu waajur tamit waaw ñu koy suñu waajur boobu suñu bu baax tamit di ko ñaanal ci kanam wax ni ko njabootam ñu ngi koy sant bu baax taxawu na leen lool ci bépp côté bismillahi irrahmani irrahim allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa taxuduhu sinatu wala nawm lahu maa fi lsamawati wa maa fi l ard man da alladi yashfau cindahu illa biidnih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 asbillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, ñu ngi leen di nuyu ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyo bi sunu yaay sama yaay nag man ndaxte ni mu ko waxee léegi moom sama yaay la ndaxte mook sama sama waajur ñu ñaar kenn lañ muy jiitu man sama sama juddu donc moo tax euh, tout à l'heure may am souvenir yu bari yu ma yu ma yu ma yu ma fàttaliku ci kanamam laa màggee ci kanamam la laa defee lu bëree bari bari mu ànd ak sama yaay ñu jaar fi waajur yëpp di jaar pour seen njaboot taxaw donc ma am yu ñëw ci sama xel moo tax tout à ma am beaucoup d'émotion sant yàlla sant yàlla nag parce que kenn ku nekk ci ñoom li nga doon xañ sa bopp pour njaboot yàlla mi ci yoon bi yàlla yàlla na sax yàlla na sax yàlla ngeen fekke tamit lu ci bëri ngeen fekke ci bëri coono bu ngeen mës a sonn ci seen njaboot rek yàlla def ngeen toog ba fàtte ko te suñu borom mën na ko amar ñu ngi la koy ñaanal bi ñu ñëw fii xamuñu woon ne suñu rak la ñuy fekk si ñu ko sëñ may waxee suñu partenaire ñu koy remercier parce que occasion bi moo ñu koy may su fekkonte ne bi muy def añu élèves invité wuñu ci woon pour ñu def si suñu contribution jotaay bi du mën a am rëccu wuñu ko nag parce que li may wax tout temps éducation mooy maire investissement bi man jàpp naa ne su ma su ma su ma doon tànn métier jàngalekat laay doon parce que passion bi ma am ci formation ak éducation mais xam bi ma xam aussi li muy li muy représenté ci ci ci développement réew comme ay actrices de développement lañ ay actrices politiques jaadu na lu mel ni bu amee ñu ñëw ci wetu waajur yi ne leen jërëjëf jërëjëf parce que yombul euh, ku jóge ci daara def cycle normalu daara ba bind kaamil alxuraan ñëw dugg système classique jàng am bac ak mention très bien c'est pas rien loolu nag bu ko nit defee dañ lay wax waa góor ñu ngi may préciser na ma bac S la am avec la mention très bien donc loolu muy am solo te bu ko ndaw defee fi réew mi toll ak fi jeunesse bi toll nga xamante ne bii sunu jeunesse xàmmeetuñ leen moom dañ ko war a citer en exemple mais dañ ko war a montrer ñëwuñu fi ànd ak presse bi parce que li ñuy def yépp ci njàng damay wax tout temps moom mën na ma seede sëñ may ça n'a rien à voir la politique tey suba moo ñu dese ak tey ci campagne bi sama collaborateur la sur le plan politique bu ma bëggee jox téléphone ma ne ko tey aw ma activité politique je suis dans les de développement dans les actions sociales ndaw moo mën a defar réew mais ndaw bu ñu formé donc loolu nag bu amee xale yi def li ñu def ñu war leen jaajëfal mais ci jaajëfal boobu ñu ci dugal tout le corps professoral parce que ñoom kese duñ ko woon réussir ils l'ont réussi parce que y a des enseignants qui en ñu toogoon ci seen wet transmettre leen xam-xam te li may wax nous devons tous chacun doit quelque chose à un enseignant te satisfaction biñ ciy am weesuwul lii élève bu réussir ñu gis ko mu toog ci bureau wala élève bu jàng ba ba ba am euh, raaye bi mu am tey nii lu ñu am ci wàllu koom suñuy waajur lañ koy joxe mais li ci enseignant yi di am mooy xol bu sedd bi nga xamante ne bi am nañ satisfaction ne kii li na ci moom ñoo ko ci def loolu nag c'est l'occasion ñu ñu jaajëfal leen cent six mentions la ñu am ci lycée bi rien que dans le lycée loolu nag c'est à saluer di wax sëñ Xaadim ne ko pas-pas bi mu am nga xamante ne bi dafa yéene nekk ingénieur dans les métiers aéronautiques yal na ko yàlla mottali xam nañ ne mu ngi ci yoon bi li ñu ci war en tant que magam d'abord parce que magam lañ bu ñu nekk woon ci état tey kilifaam bu defee li mu def ñu taxaw ci wetam kon dinañ taxaw ci wetam en tant que magam mais dinañ taxaw ci wetam en tant que état bi ñu doon pour que mu réaliser rêvam ndax lu mu am ci li mu réaliser rêvam ci sunu yaay jëm kon dara duñu ci génn ñu ngi lay ñaanal yàlla def lii nekk commencement wu sa Euh, di la di la soññiwaat xam nañ ne nag euh, paaka li olof di wax lu mu ñaw ñaw nga nàmm ko mais jóge woo fooy defee lu ñuy amee jaaxale euh, yàlla tànnal na la waajur yu baax ma xam sa yaay mu yar ma kon bu lii amee man duma bett li ci des nag mooy yow nga gën a yokk sa góorgóor parce moo la indi fi nga nekk nii donc maa yoon bi ndax xale moom xaj na ñun ay waajuram noonu sax waaye ñu koy jàngal ñun ñoo ndax ñoom lay gis surtout ñu moom bu xëy retaan ñu dëgg yàlla sama doom la waaye muy tam bu neex a yor xale bu neex yàlla jàppal ko mu assi waaye bëgg-bëggam la da koo bëgg te da koo fonk trop di waajuram tamit comme ni ngeen lu muy bañ comme nii rek fonk njàngam fonk ay kilifaam wax dëgg yàlla loolu ko ñëpp xam loolu man nag mun maa wax waaye sant naa leen yéen ndax comme li sëñ may wax rek li mu def moom c'est pas quelque chose de facile euh, autorités yi bari nañ et comme ni wax aussi dañoo nekk ci période campagne électorale euh, elle n'était pas obligée mu ñëw fii wala muy wër candidat yi pour féliciter leen et pourtant daf ko def ce qui veut dire que moom euh, wàllum jàng daf ko daf ko soxal waaye comme di souvent souvent euh, boo réussir peut-être ñëpp apprécier mais man kese euh, je ne suis pas la seule actrice de cette réussite ndax su fekkoon si ni ñoom dama bëggoon jàng ñu ne ma doo jàng ma ci dara damay obligé def leneen mais dañ ma jàppale ci jàng bi dépuis bi ma duggee école jusqu'à présent donc lu ma réussir rek ñoom la ginnaaw yàlla ñoom la may may ma leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax di leen comme li suñ may wax aussi ce n'est que le début du commencement Inch'Allah Rabbi nous allons continuer sur cette même lancée et nous pensons que nous allons y arriver Inch'Allah en réalité j'aimerais suivre euh, le droit waaye comme ni ñu ko constaté ci localité Mbacké ak Touba waaye il faut ñu ñu ñu rappeler que am nañ ay beaucoup de difficultés c'est-à-dire am nañ problème de transport parce que pour nga jógee Touba dem Mbacké problème bu bu metti da ngay jóge fii dox ba ba jumaa dem ci arrêt bus yi pour dugg yenn saa yi sax doo am place da ngay taxaw ba lycée soo wàccee lay gën a pire ndax soo wàccee sax daanaka doo gis tata da ngay obligé dox lycée de Mbacké ba marché Mbacké mu nekk lu metti trop élèves di dañuy rencontrer difficulté yu baree baree bare bari pour jàngi diggante Touba ak Mbacké kon ñi ngi même si ñun réussir nañ dañuy bëgg aussi condition yi nga xam ne doon nañ ci dudul ba am suñu bac suñu frères et yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu bañ a dudd loolu kon ñu ngi lancé autorité yi ñu jàppale leen bu baax ci wàllum bus wàllum oto bu mën di doon boo xam ne dina leen mën a yóbbu sans que autant ñu am difficulté ndax daf ci joué bu baax a baax a baax le fait ngay jàngi am problème pour dugg oto euh, day yàggal ci yoon bi te da ngay am perte temps bu baree baree bari kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax faciliter ko élèves yi nga xam ne ngi jàng pour mu gën a gën a am jeexital ci résultat yi. Euh, ñu ñëw fi tey seen kër pour euh, félicité la apporter la aussi les félicitations de l'État du Sénégal apporter la aussi félicitation wu dëkk bi yëpp ak kilifa yi fi nekk euh, wax nga lu am solo yow rek doo actrice wu réussite bi xam naa ci dara parce que tout ba jàng fi yombul sama jéego yi defuma ko juste pour bëgg a ay micro dama bëgg a ci tribune bi waajur ñuy seetaan yëpp ak xale yi seetaan ñu xam ne c'est possible c'est possible tout simplement bu ci waajur yi dugalee seen loxo parce que ni ko waxee suñ la def la woon dara leneen danga koy bàyyi dem defi ko heureusement bi nga tombee ci ay waajur yu la jàngloo tout temps nag dama koy wax ci samay waxtaan dañu toll ci tabax Sénégal Sénégal nag mu mënuñ ko tabax lu dul ak des ressources humaines de qualité te Touba war ci am taxawaay kon tey bu ñu demee ba am mention defe naa dañ ci kontaan di ci sant mention bi nag yemoo ci mais da nga am mention très bien loolu defe naa jàngkat dëgg-dëgg mooy mooy def loolu loolu nag say waajur am nañ ci responsabilité mais yow ñu ngi lay ñaanal di la xamal ne état du Sénégal à travers ma voix daañ taxaw si sa wet accompagner la ba nga xamante ne bi fi nga bëgg tey sa carrière dem fa dinañ la ko yombalal nag soxna si ñu ngi lay jaajëfal en tant que yaay ñu jug en tant que yaay mais jug en tant que ay actrice de développement mais en tant que autorité euh, locale administrative dëkk fii ci dëkk bi bu fi lu mel ni amee muy sagu Sénégal di jigéen tamit teg ci donc dañ koy rafetlu mais dañuy ñëw encourager ko rassurer ko rassurer ko ba mu xam ne euh, li des ci carrière lu ci état du Sénégal war a def dinañ ko def dinañ ko taxawu dinañ ko gunge ndax lépp lu mu xam ak lu mu mën dina dellu siwaat bokk ci ndaw yi war a taxaw ëllëg tabax Sénégal donc ñu ngi leen di gërëm yéen parents yi di ko encouragé di xam ne rek ne suba incha allah maa ngi wax léegi sëñ May dinañ def un comité rapidement boo xam ne day accompagner leen pour les démarches administratives dama xamul nag en terme de procédure est-ce que transcription yi ak yooyu defoon nga ko jotoon nga ko ñu ngi may wax ne ma Sorbonne accepté woon nañ sa sa sa transcription loolu yëpp nag dinañ la ci jàppale li ci état war def mais ñun tamit luñ la ci war a jàppale en tant que ay acteurs de développement kilifa bi ñu doon mais nekk ci ministère boo xam ne day yëngu ci wàllu formation ak njàngale ñu ñëw pour taxaw ci wetu waajur yi jàppale ko rapidement mu def les démarches yi nga xamante ne bi bu fekkente ne moom wala ay waajuram dañoo bëgg mu jàngi bitim réew am na lu muy laaj am na ay kayit yu muy laaj ñu jàppale ko ci loolu yombalal ko bu fekkente buñ leen mën accompagner pour orientation maanaam fi mu bëgg a jëmale carrière professionnelle ñu ñëw indil ko tuuti lu ñu xam ak fi ñu bëgg réew mi jëmale fa ñu dolli ko suñu xalaat boole ko ak xalaatam pour mu mën a egg fi nga xamante ne bi moom la ay waajuram di séntu mais moom aussi moom la bëgg ci carrière am te rek ci seen temps d'antenne bi quand même pour interpeller mairie parce que bu ñu demee ba tey ay xale jàng am bac ak mention très bien ci condition yu ñu xam Touba amul école xale yi dañuy jóge Touba heure bu metti dem ba Mbàkke pour jàngi waat fa war a ñibbisi war a concentré wu ci seen ay jàng coono bi ñuy jànkontee ci aller retour bi ja jaadu na fi ñu toll nii ci résultat yi ñu seetlu ci département bi cent six mentions mairie war na ci dugal loxoom fi ñu koy xaare nag li ci gën a urgent mooy ay car yu transporter xale yi di leen jële ci localité yi ñu dëkk ci bi dëkk bi di leen yóbbu ci école yi parce que dañ leen di ak école yi ñu ngi koy xaar xam nañ ne le maire Abdou Lahad waajur la te xale yi xam na ko kon nag ñu ngi koy séntu ci neexal yi mu war a neexal xale yi ay bus yu leen di transporter loolu la ñuy xaar ci mairie bi jërëjëf. madame Amy Dage mi ngi ko jeexalee ci ñi nga xam ne moom mooy professeur Assane Ndiaye doomam bokk ci ñi nga xam ne dañoo am mention bien ak série s ci lycée bu Mbacké professeur Assane Ndiaye mbokk yi ñu fàttali ni mbokk na moom mooy maire enseignant du Sénégal. donc bokk ci top cinquante du monde yi nga xam ni maanaam ràññee nañ ko waaye tamit jël yàggul dara raaye bi nga xam ne ni ci Afrique sow jant moom moo ci jiitu. visite bi nag ca proviseur Keita félicité ko ci ndam lu yaatu bi nga xam ni am na ko ak lu ëpp téeméeri mention ci ren bile.